bi mu nekkee ca lam fi fekk yépp ba am ndigaluk yàlla ngir yeesalaat loole di dox dëppoo ak nattu yi dal ci kawam ba ay noonu jamonoom jële ko fi yóbbu ko bitim réew muy xisa goo xam ne li ëpp ci ñun peeg nañ dem sëriñ bi ak bëgg la amoon ci yonent bi sallallahu alayhi ak xemmeem ña nga xam ne saa su ne duñu tàqalikoo ak moom mu bëgg a bokk ci ñooñu ni ko sëñ Abdou Lahat nettalee ci tegtal ixtilaaf boobu mu defoon ci jàkk ji sëriñ Mbàkke Madina defaroon waaye def ci biti Gabon juróom-ñaari at ak lu teg woolu maam Cheikh Anta mu fekk si ko fa ba mu ko fa fekk see it Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul wax na mébétam ak bëgg-bëggam ak yéeneem maam Cheikh Anta waaye Cheikh Sidil Muxtaar ci déglu bi ko Sëñ Tuubaa di déglu ak ànd gi muy ànd ak moom ci li ëpp ci ay kàddoom moo sàkku sëriñ bi ngir mu dellu si ba tegtal gi ci am ci alquran wallahu yadduhu ila daari salaami wa yahdi man yasha ila siraatin loolu nag tegtal na dellu si sëriñ bi waaye it waxoon na ko ne foo ma dégg rek dama faa jaar samay bagage fii laa koy wàcce fukki fan ak juróom-ñeent ci kori ba ñaar fukki fan ci diggub tabaski la Serigne Touba def fii ci Darou Salaam muy weer wu dëgg woo xam ne kenn mënu ko wàññi ci ay fan waaye it juróom-ñaari fan yu njëkk yi lu ne maam Cheikh Anta defal na ci ngir teral ko te loolu dafa bokk ci ak bëgg boo jaayanteek sa kilifa muy sa wasila sa digganteeg sa borom boo jiitalul ak bëgg rek la nga am doo ko bëgg Sëriñ Tuubaa amul woon sago ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daani li ihdaa nabi xubbi zaatihi yu bari nee na la ma ko may mooy bëgg gi ma bëgg ak jëmmam te ba muy joxe melokaanu murit bokk na ca la mu waxoon asidqu fi mahabbati cheikh bëgg googu nag feeñ ci seex Sidil Mokhtar mooy dox ba tey moo tax boroom téere ba nee na sooy bëgg bëggal te yàlla rek tax ba may man yuhibba lillah wa yubxida lahu wa yarda lahu lay sabab bi mooy dana dem ba su kanamu sunu borom subhaanahu wa taala jëf lu mu rëy rëy rëy la ca am solo mooy jëf gi sax kon Cheikh Sidil Mokhtar ak bëggam yàlla képp la ko la ko seedaloon digganteem ak Serigne Touba. amul benn poñetu àdduna bu taxoon mu bëgg sëñ Tuubaa amul benn bëgg-bëgg àdduna bu taxoon mu bëgg sëñ Tuubaa bëgg gi te yàlla rek tax moo wane ba lii tey ba muy bëgg a tàggoo 1939 ci la ne waat nag bés bii naa ko yeesalaat wax ko ni mu ko bëggee waaye boo ko nattee ba tey jii 1939 ba 2022 lu bari feeñ na ci te la ca gën a fës nag mooy alxuraanul karim bi ciy feeñ. lépp lu fi waaye di def ak lu mu bari bari bari mënta fawxa alxuraanul karim yi ñuy jàng ci dëkk bi fii ndax fukki fan ak juróom ci digg wi diggub tabaski ba ñaar fukki fan bu ñu màggalee ba ca ëllëg sa du ñu dañ di jàng ay lim ci alxuraanul karim kon nag loolu tawfiix la waaye nag sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar am na cër ci ci ci ci Seex Sidil Muxtaar cër bi mooy njabootam wane nañ loolu ni ñu ko wanee mooy tàggat bi ñuy tàggat nit ñi xirtal gi ñu leen di xirtal ci njub saxal gi ñu leen di saxal ci siraat ñu ngi ñuy xamal ne sëriñ si di Mbacké mu maam noo Daaru Marnaan teew na fi léegi yal na yàlla barkeel te mottali lépp ci barke alquran kon loolu mooy fësal jëme ci wàllu liggéey bi sëriñ Ibrahima Mbacké Ndar am na cër ci maam Cheikh Anta cëram feeñ na ci njabootam ndax kenn ku nekk ci ñoom sa xemmemteef mooy nan ngay def ba teg ndaw ñi ci siraatul mustaqim amin amin amin jërëjëfati Mbàkke macha allah amin sëriñ Sidi ibnu sëñ Ibra Mbàkke Ndar nee na mu ngi leen di seedeel ni sëriñ Sidi Mbàkke mu maam Cerno Daaru Marnaan moo fi teew nii di ko ziyaar si muy ànd goo xam ne ànd gu yàgg la kon booy tudd sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar ki nga xam ne moo yoroon turu saayiram sëtam teew fi loolu ak tawfiix la seen taxawaay Mbàkke ca ndakaaru nga xam ne fu jafee liggéeyal yàlla la fu jafe liggéeyal sëñ Tuubaa ngeen am ci taxawaay bu ràññeeku li ngeen fi defar ci ay nit ñoo xam ne sànku nañu woon dañuy wax ca woykat ba nee na lislaam bi sànku ji na woon bàmbaa ko dab ci biiru noon benn sëriñ moo fi ne woon mooy Cheikh Ahmadul Xadim waaye yéen ñii day kàddu googu dégg ngañ ko li ëpp ci ñun ñi fi teew te dëkk ndakaaru sànku ji nañu woon waaye ndimbal li ñu am mooy sëriñ Ibra Mbàkke Ndar moo def leeram ci suñu dën ci suñu dënn ba njabootam bu ñu gis du am sago ci ñun ngir jubal ñu teg bi ngeen teg ci yoonu njub àndu leen ci ak sago ñàkk sago googu ngeen am ci loolu ba teg ñu ci moo tax it mënuñoo am sago ci yéen nit mën na laa defal lu nekk ba nga fay ko waaye jël leeru sunu borom tàbbal ko ci sa biir dënn ngay yëg yàlla kooku mënoo koo fay moo tax kenn ku ci nekk ci ñun sa xër ca ca këla Sëriñ Tuubaa booleel bu yeboo ku nekk rek nangul la ko te xam ne foofu mooy sa tolluwaay kenn ku ci nekk nag ca na nga sóoboo képp noonu képp ngay taxee waaye Mbàkke yéen a ko jëf yéen a ko liggéey liggéeyal ngeen alxuraan ba li ëpp ci ñi nga xam ne ñu ngi liggéeyal sëñ Tuubaa ci jamono ji ci yéen lañu royee ba ngeen koy tàmbali kenn xalaatu loolu li mu feeñal doy na tawfiix mbokki taalibe yi ñun ñi nekk ci biir ëtt bii di ëttu sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar am nañ lu jafe te lu jafe boo ko amee danga ko war a téye te fonk te téye te fonk ko mooy kenn ku nekk ci ñun ki la maam Cheikh booleel bul am sago ci moom bul ko jib mukk di xalaat loo koy jox ak loo ko dul jox ndax nit bu xasee wax aslamtu si bu gisee sëriñam na jël léppam jox li ëpp ci ñun bés bii ku ci am looy denc di waajal leneen néewal bés bii sa gëm sa diggante digganteeg sëñ Tuubaa des na te loo leen jox ñoom ñu def ko ci sëñ loo leen jox ngi def ko ci sëñ Tuubaa njabootu sëñ Ibrahima Mbàkke Ndar gi yëpp ñun ñi fi toog di dongo yi kan moo fi mës a fàttaliku kenn ci ñoom ñëw sa kër di am lu mu lay laaj loolu du seen yitte taxu leen a jóg ñoom ñooy yëkkati da leen jox dañoo boole teraanga Ndar dayloo maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawam yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla sàmm leen li ci des nag mooy ñu jàng xatmu bi bu ñu jàngee xan ku mu tànnoon ci ñoom moo doon yëkkati alxuraan bi nii nee na mu ngi ñaan nga ñaan xale yi ñu amul barke kenn ci ñoom rek bu yëkkatee alxuraan nga dégg ko nee na barke gi dina wàcc ci ñoom loolu nag ñu ngi koy ñaanal sëriñ bi yàlla na yàlla dëgëral ko ci yàlla yàlla tawféexal ko démb rek nee na màggalu ren gi li ma ci neex mooy fukki dongo yuñ ma jox lu ëpp fukki dongo ñu jox ma ko fukki ci ñoom génn mokkal alxuraan juróom ña tari maanaam wàcce alxuraan juróom ña tari nee na loolu rek doy na tawféex ci moom. nee na nag liggéey la koo xam ne yow képp la ko mën a seedeel ngir nga mën koo yëg lim yi bàyyeekoo na fu nekk saadatu daaray ni bu sëriñ Moodu Maamun asxaabul jannati bu Medina jëwrin Adama Diop jiite ko miftaawul nasri bu sëriñ Saliou mbàkke Darou Salaam ak yeneen wëllëre yi lim yi bàyyeekoo na fu ne sëriñ Sidi ngir lan ñu dajale lim yooyu yëpp def ko muy benn xat loolu nag Mbacke tawféex la koo xam ne mbokki taalibe yi mbooleem ñi nekk biir sëñ Ibra tàmbali woon nañ ay limu alxuraan di ko jàng ba tey jii ñoom ñëpp dajale nañ li mu indi incha allah jataayu xataayu jataay bi moo tax waaye dinañ la tënkal lépp indi jot ko nga xam li ñu jàng ci alxuraan ci bis bi ñu ngi siyaare ñëpp tey ñaanal ñëpp te bàyyi sëriñ bi ak kàddu gi ndigal lu mu joxe rek kon nee na nañ maase ñun ñëpp jàng suuratul fatiha jàng salaatu ala nabi ñu jàng xatmul quran bi buñ fi noppee dinañ dox dem ba ci barabu sëriñ Ibra Mbàkke Ndar duñ fa jàng alxuraan ndax lañu waroon jàng yépp jàng nañ ko fii xatmu bu njëkk bi lañ jàng fii ñaareelu xatmu bi buñ demee ca barabu sëriñ Ibra Mbàkke Ndar incha allah ñu jàng ko fa sëriñ bi nee na mu ngi soññ ñëpp nañ daan defee ziyaar yi na amuk dal ñu bàyyi xel ñi nekk ci wet gi ñu am yërmande ci ñoom def war ma ci barab yi barabu daaru salaam tàmbali na di yaatu kenn ku ne fa ngay dox na nga ko xool te xam ne kërug jàmbur kenn du kenn du ko joggi loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel mbokki taalibe yi incha allah jërëjëf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 wa min charri naffaathaati fi l-uqad wa min charri xaasidin idaa xasad bismillaahi rahmaani rahiim qul acuuzu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min charri l-waswaasi l-xannaas allazii yuwaswisu fii suduuri nnaas min aljinnati wannaas sadaqa allahu alazim sadaqa allahu alazim wa ballaga rasuluhu alnabiyi almustafa alkarim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min alshahidin allahumma irhamna bilqurani alkarim wanfacna bilayaati wa dikri alxakim waj'alhu lana yawma ad-din allahumma infa'na bima saraftu fi min al-ayati wa zakkirna bima darabtu fi min al-mathulat wa kaffir bi tilawatihi anna sayyi'ati innaka mujibu ad-da'wat اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز أنا ما كان في تلاوته من شهو أو نسيان aw taarifin aw taadimin aw taaxirin aw ziyaadatin aw nuqsaan aw tawilin ala gayri ma anzaltahu aw taajila inda tilawatihi aw kathalin aw zayxi lisaan aw wuxuufin bi gayri waxfin aw idgaamin bi gayri mudham aw izhaari bi gayri bayaan faktubuhu minna ala tamaami wal kamaali wal muazzabi min kulli anhaan warzuqna fadla man qara muwaadiyan xaqal ma al aadaai wal qalbi wal lisaan wa hab lana bil xayra wa saadaati wal bushaaraati wal amaan wala taxtim lana bi charri wa dalaalati wa tuxyaan ونبحنا قبل المنايا النوم غفلة وكثلان وأمنا من قذاب القبر ومن سوء للمنكر والنكير ومن أكل الديدان وبيت وجوهنا يوم البخس وأقطق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وفاعل ميزاننا بالقسنات wa thabbit aqdaamana ala siraati waaskina wasatal jinaan warzuqna jiwaara sayyidina muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa akrimna bi liqaa'ika yaa dayyaan allahumma ij'al al-qur'aan al-'aziim rabi'a quluubinaa wa jalaa'a ahzaanina wa zahaba umuuminaa وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل نيساننا في الوعسة ومصاحبنا في الوعدة ومسباقنا في الظلمة والضلالنا في القيرة ومنعزنا في الفتنة واخسمنا به من الزيح والأعواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم أحتم بالسعادات عجالنا وأقر بالزيادات آمالنا واحرن بعافية عدونا وآسلنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومع لنا وبسجك عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وسقط بك زخرنا واخدخاءنا وأمن من الجوء وخوف بلادنا وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه والنور ما تلوناه إلى روح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين wali arwaahi abaa'ina wa ummahatina wa masaaxina wali arwaahi jamii al muslimiin والصلاة والسلام على سيدنا محمد قاتم نبيين وإمام المرسلين إلى سوى نحوي بالإخلاص جدلي إلى الجنة الإخلاص رسيل يا صبور صل بسلام على الذي فاق بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في العالي والمعالي ولتكفنا بحق سورة الفلق وسورة الناس العزايا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه وصحبه باقي السلام بكل حرف من تيح الحروف بشارة جنوب الله نقول أن فاتل آمين من بلش آمين bokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye di ñaanal sëriñ Sidi Mbàkke mi toog li ma ta wax sëriñ Xaadim Njaay mi wax na ko yow sore waaye yow rek li nga jubal ci ndakaaru ci alxuraan doy na sëkk mu jóge na ci sab sëriñ bu baax bi sëñ Babacar mu kamal waaye sëriñ Sidi yal na nga am jàmm yow ñëpp la yéen a jàmm kiin déggulu ci dara na ci li sa liggéey maam bi rek sëñ gaawaan rek gëm yàlla lool bëgg ko di jaamu yàlla li ma la rek man dama ne man France laa la xamee France ca Paris laa la xamee ñu naa France seet seet si la ba sa kër fa nga dëkk nii nga mel nii rek nga ma xamee waaye cërëb yàlla xamoon naa ne am na lu lay préparé mooy lii tey waaye sëñ bi ñu ngi sant bu baax sark yu baax ji sëñ Babacar Mbacke sa Baye Fall bii nga xam ne ñëpp nangul nan ko ñun ñun fii fii moom fiy dugal yi après trente cinq ans moom mi moom fi dugaloon ñu ànd ak ñu di liggéey waaye seen wéjure sëñ Ibrahima Mbacke dafa jëlal baat dem làq ko ngir lan taay bi gëm Serigne waaye moo toj Ndakaaru yéen ba nga yëngal Ndakaaru kay yëngalul sëñ Ibrahima ba mu yëngal. ni jaar sëñ Babacar mi kenn yëngul tey ñu bari yaa leen tax a jóg kooku mu ne mu kabaroo ay wax dëgg nit boo defee ci moom alxuraan def ci jaamu yàlla jox ko ngëm sëñ xaañum wax wax nga dëgg taalibe du calcul bu sëñ bi ne nangam rek doonu jëf loolu moo di ak taalibe waaye sëñ si di ñoo nga ñaan nga yàgg fi loolu te ànd ak wér lii lay ñaanal mooy lii yàlla teg sa kaw muy xalifa gii mett na waaye lu la yàlla ñu dana lu ko téeñal kon nag Mbàkke bis bii tey di bis bii nga xam ni tey ci la sëriñ gaawaan ganewul magam ju baax ja ñu ngi ñaan nga gudd fan loolu tawéer ànd ko na sark ju baax ji ku la nangul nag lu baax yombut de sëñ Babacar cër bi ko yàlla jox moom rek la ko jox xoolul kenn ku dul yow mu lu wax mu ni sëriñ Sidi loolu cër la de yooyu yàlla na yàgg Mbàkke ñu ngi ñaan daal lii daal yal na fi li nga bëgg daal sa njaboot gi ak si borom dër gi yàlla na nga dem ba mu ci lu kaw sa njort yàlla mën na ko dana ko def barke sëñ Tuubaa barke sëñ Jaw sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp du nuyu ñëpp nee na dana ci lancer message jëmale ko ci nguur gi nañu dal ñu xam ni Sénégal ñoo ko bokk. muy Macky ak Sonko. nañu toog wax bu lu yàq Sénégal Sénégal am na fi loo xam ne kenn mënu ko yàq kenn ko yàq nag. ku yàq mu dellu sa kaw mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yal yàlla dolli sutura sëñ Babacar Mbacke mu ko baraw mii yàllaal dafa tawféex la ilaha nee na lii ngay liggéey ba mu la koy wax ëpp na juróom fukki mbaa ëpp na ko nee na kon ku xam lii de du am mbetteel sëñ bi nee na mi ngi lay ñaanal bu baax. di ñaanal rakkam yi sëriñ Saaliw sëñ Ibba Taal di ci bëre alaaji takku yónni na njabootam ñeene di ñaanal jigéen ñëpp nag mamanta Mbakke ak mamanta ak Seynabu ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp Mbakke yéen yàlla defal ñu yokkunu yokkunu ci bis bi xuma rek lañ fi jàng ci alxuraan jàng ci tuxfatu jàng ko ci yaasin jàng ko ci muwayibu ak jasmul xulóob képp ku fi fas nee na suñu bon daan defal teew fiix de yàlla nañu defal màggalug barke te may gu yaram ñu ngi sant ñëpp. la ilaha illallah ci liggéey rek waaw siyaaro balab bi nañ ca lañ def waaye dégg ngeen message bi sëñ bi yónnee mu jëm ci réew mi Mbàkke ko mel ne war naa wax réew mi ñor na la te réew mi noo ko bokk kon nag li nga wax na président ak ñu ñu ko seq yëpp nañu bokk ci waxtaan ndax bari na lu ne yàq yoo xam ne ñu ngi yàq nit ko xam ne mu nekku ci kon nag réew mi wax jot na Mbàkke lii lii day lëndoon séntu ci yow ñu ngi ñaan gudd fan te yàggoon digal sa ndigal daal na lu yomb ci barkeb Sëñ Tuubaa jërëjëf sëriñ Sidi Mbacke waaw kon de xanaa ndigal sëriñ Babacar neen lu waaj lay ni ñoo ngi ci liggéey bi rek jërëjëf Mbacke tey sëriñ kenn du moom wax dëgg de renseignement